wajalilaayi maskani tuubaabaat misrasmi abijaayi xayri ma nabaat wajalilaayi ci turu mën naa wax ni président Touba ca kanam di Serigne Abdoul Fattah ak mbooleem ñi nga xam ne nii ñoom lañu ñu àndal dañoo bëgg a yëkkati ay kàddu rek yoo xam ne dafay jëm ci Serigne Abibou gannaaw bu ñu ko sante ñettal ci turu sunu kilifa yii bu ñu yàlla dimbalee Touba ca kanam taxaw sëriñ bu tàbbi ci yëkkati ay kàddu yoo xam ne nii dafa barkel bu ñu dawee ab diir nag di ñetti at at mu nekk ñu def loolu ñuy tuddee assemblée générale soppar ñi toogaay yi nga xam ne sëriñ Fallou Ndiaye mii nga xam ne moo njëkk a nekk président Touba ca kanam mu ngi nii tey keroog ba ñuy soppar ñi ba nit ñi yëgee ne Serigne Abdou Fatah mii lañu ñu bëgg mu toog ca toogu ba mu bañ mbooloo mi sàkku mu nangul ñu ko amul benn sikki sàkk amul benn coow ndax kenn ku ci nekk da nga gëm ne ku toog ci luy war a ndiku faw nga war a ndiku te sëriñ bi yéen a ma gën a xam ne lii di assemblée générale bëri na ay kuréel yoo xam ne duñ koy def sax ndax moment wu xëccoo la ak njëkkante loolu nag dafa amul ci Touba kanam bu ngeen seetloo même parti politique yi rarement la ñuy def congrès wala renouvellement ndax ay moment la yoo xam ne ñoom dañ ci xëccoo ak guuxante Touba ca kanam nag bu assemblée générale jotee kenn ku ci nekk da nga naan man de sama toog gi ma yoroon bis ni ki tey delloo naa leen ko yéen askan bi seet leen nu ngeen di def yenn saa yi sax bu ñu nee kan moo bëgg a nekk candidat comme keroog bu ñu nee ku bëgg a nekk président Touba ca kanam kenn yëkkatiwul sa loxo mennum Abdou Fatah nit ñëpp yéene ne yow yaa fiy toogaat kuréel yëpp it noonu lañ ko sopparñee loolu yaakaar naa sant yàlla bu wér la loolu nag bu ñu ko mënee am ñun ñëpp dañoo maase ànd ci ne ñun benn kilifa lañ am muy sëriñ bi mm-hmm. te mat na ko sëkk moom nag yëf yi rëy na ci moom sëñ bi waaye na la leer ne lépp loo yëg ci nii la askan wi def ñun yëg nañ lu ëpp sax li nga yëg barke sëriñ Touba. Mm-hmm. te loolu ñii ma toogal nii yëpp mën nañ koo seete moo tax kon tey bu ñu defee renouvellement am bureau bu bees assemblée générale bi jàll ba tey ñu xëy ñëw pour mboolem fu tubaa ca kanam nekk xam ne ñun nii lañ nekkee Touba ca kanam amul ku jiitu amul ku topp ca gannaaw génn kilifaa fi nekk muy Serigne loolu dañ ciy sant Serigne Touba gannaaw buñ ci sant yàlla julli ci yonante bi Seydina Muhammad sallallahu taala alayhi wa sallam di wax ne ñun yow nag yaa nekk ci position boo xam ne amul soppar ñi amul soppal ñi yow yaa ñuy jiite tey ci kàttanu sunu borom yaa ñuy jiite ëllëg yaa ñuy jiite gannaaw ëllëg ñun ñoo bëgg nga jiitu ñun ñëpp dañoo ànd maase ne yow yaa ñuy jiite ñun bëgg ñëw jiite kon sëñ Abibou assemblée générale bi jàll na fan lañ bureau bu bees mbooloo mi yëpp ànd nañ ci Touba ca kanam dégluwaat ceeb bu yees mii ci sa kàddu yu barkeel yooyu bismillah sëñ Abibou. maa ngi di leen baal ak baax di leen baal ak kenn am na ñaari gaal gi suñu seex dégg naa wax ji wax maa ngi di sant bu baax di gërëm te di loo waxal sama bopp di wax ne lii du asaar nga fekk ma jàng alxuraan nii ay boo toll bi ma jox ci bi ma jox bi ma jox kaddu gi naa ngi toog baax na bismillah minsa wala salaamati sunu mu kili ixwaan ñu takk ma wa qaala alhamdulilah di si hadana wa sama ko la karim wala am na dem daal ko jàng si sooti sooti laxraaf wax yàlla ne dana di jëm kañaan xilli mooy mooy mooy bayante rek. macha allah fi rek. Touba Ca Kanam noo ko rek moom amee. ay nit ñu bokk xol la bokk yéene bokk fi jëm. moo tax dara xëy suñu diggante. boo jàmm salaat rek. ndax ñëpp mënuñu dund waaye yàlla bi nga xam ne du ci àll arwaax yi ci boppam war naa leen ñu benn. ñu nekk ay jullit nekkaat ay murit wala bokkaat génération bokkaat jamono joo xam ne ñooy taxaw war am liggéey bu liggéey Sëñ Tuubaa te mag ña nga xam liggéey Sëñ Tuubaa jàpp na liggéey Sëñ di jeex waaye du jeex bu ci àdduna kon ñun am nañ tawfeex yi te seeg koo xam ne bëgg naa dox kay dem te ku dem mu dem ku dem mu dem ñu bëgg ànd ak moom ñu Sëñ Tuubaa sax ñu taxaw yàlla nga dem ci yóbbaale ñu te ànd ak moom ndax liggéey suñu kon gëm naa ne lu ci réew mi ba bitim réew ak faay nekk liggéey suñu kàddu wala mu jàkkaar suñu jëmuñu xeebu ji ñu ngi ñaan yàlla ku jàkkaarloo ñun koo kum jàkkaar lool koo kum jàkkaar lool ba sob yàlla ñëpp yàlla ñu yàlla jéggal te ci euh, at mu bees mi bismillaahi rahmaani rahiim yàlla na àgg ci ñun alhamdulillaahi rabbil mbas yi dégg ak musiba yi dégg yàlla ñu ci yàlla musal réew mi waaye yàlla ñu yàlla musal murid yàlla yàlla musal julli yëpp fu aw ay mm, di tàkk yàlla ko sama borom fay te def jàmm ci àdduna sépp def ko suñu réew mii def ko suñu dëkk bi def ko ci suñu kuréel bii nag dañ ko defaat suñu wataay bopp bi ñun suñu njabootu bopp yi man nag euh, suma wax mën na cee bañ a bari ndax euh, xol bu fees su demee tuuti rek damay dem ba daanaka duma fi nekkati waaye nag dama leen ñaan rek euh, tawfeex ak mucc yàlla nañ Sëriñ Tuubaa gàttandoo ndax Sëriñ Abdou Khadre daana wax jàmbaar amul ku ñu dimbale am kon yàlla na yàlla dimbale te dimbale yàlla kat ci boppam du ànd pënd suñu borom tappi suñu xol am bis ma Abdou Fatah mii ne ko toog bi sàgg ma gént loo xam ne dafa yéeme ci wan mel na ci wàcc karam bi yóbbu mbir dafa am waaye seytaane moom ci boppam moo bëgg lu baax moo bëgg lu baax ndax ba mu yàqule ba tey Euh, ku mu ko nga jëm ci yàlla dana su xëpp ci pënd bu ko mën a xëpp dana ko la def ko def loo ndax tayal la ñu ko def loo boo lànkee tayal mën na nga sawaral nga mën a gaawantu nga lànk mën la ngisal ci nga gas nga bañ mën a mën a ko kon nañ jàpp ne tàmbali euh, sëñ bi koy lebal doona doy na waaye bu lay fay itam doon la amu foo def du tax mu te ku ne ci ñun day euh, boo seetlal li ngay def te sëñ bi rek tax di ko def balaa waxtu décidé na nga sax yokk wér sa bopp kon sëñ Tuubaa moom yi ñu ko tàllal suñu loxo di di sukkaat ci kanamam te gën a toroxal te gën a jox joxal ko suñu bopp di ko ñaan ñu doon ñu làq ngërëmam rek sayyidullah ngërëm sëñ Tuubaa bu ñu ko xasee làq mooy moo gën àdduna alaxira dañuy wax ne ngërëm sëñ Tuubaa mooy jëf fara rek kenn ku ne juróom-ñaar fukki ayatul si ñaan yàlla mu sange ñu aar ñu sàmm ñu musal ñu musal ñu suñu jabat te bu ko defee yaakaar ñëpp dañ ko gis dana am incha allahu taala eh, kon may sant yàlla rek di leen gën santaat tey gën sant kilifa yi nga xam ne bokk ci liggéey bi yëpp moo xam ñi nga xam ne dañoo bokk ci kuréel bi ak ñu ci bokkut te suñu kilifa yoo xam ne nekk suñu kanam te ku wax rek wax ji seere genn la te man maa a mbooloo maa ci gën a xeebu eh, maa gën a ñàkk parce que suñu tim waaye nag la laa xam ne moom du ko nangu kenn mu gën ma bëgg Sëriñ Tuubaa loolu moom da nga ko buuxante ci mag ñi laa koy buuxante rek ba fu mu fu mu ñam neex du ko bàyyi kenn moom moom damaa génn góor gu góor goo xam ne sama idole la moom nga xam ne moom moo saf ma saf ko mooy moom moom moom moom sama waay la moom moom moom du damay buuxante moom rek fu fu mu ko teg ma teg ko fa rek waaw du ma teggi fu mu teg ma teg ko fa rek ndax wóor na ma bëgg Sëriñ la def moom wóor na Sëriñ doy la ko kon moom foofu laa nekk rek euh, euh, ba sëñ bi ak wóolu ko mooy ko jox sa lépp mu yor la si waaye soo ko joxee tuuti yor tuuti lam la lam la bàyyi mu la jël moom waaye boo ko si lépp mu yor si lépp dootu am benn jafe-jafe kon nañ jox lépp jox lépp sëñ Tuubaa te ñaan lii mu téye ko boppam rek waaw bu ci kenn gis boppam bu ci kenn gis boppam doomu aadama nag dafa gaaw a doy waar ndax ñaare ko la yaa jiitu nangam rek wala yaa def nangam mu ne mu ne man maa ko moom te kenn moomu ko ndabal teraanga bu ko tegee ay gor boo xamante ko ba mu pàllax moo ngi xëccoo ko mu xar loolu nga wax ne démocratie amut démocratie mooy xokkumu saabi saabi lañu mooy peuple di ay tamit peuple te loolu amu njariñ li ëpp mooy kenn bañ a bëgg maa ngi seetlu subhaanahu fii ma toog day suñu seetoon gën a euh, doon tàng ca murid ñu ne jiitu tuwaaj kan mu topp ci ginnaaw bés moo ma dàqal ci lu tan tarfate ni ne dama yëg ne am natt lu ma teg waaye nag liggéey suñu tuwaa moom ku ne war ngaa ñaan yàlla mu boole la ndax benn bis képp eh, ku yàlla tawfeexee nga liggéey Sëriñ Tuubaa day wóor ne sa aju fajal moom te dootu dellu ginnaaw mukk kon maa ngi sant waa réew mi di sant waa bitim réew a bi gis nañ lépp indi ma rapport financier bi si maamu def na ko jàngat na ko gis naa ko day day gis day abu rek wan naa ko mu yéemee ne ma lii kat of naag moom ci wax na ma ko xool na lépp ab set da ko ma lépp ne waaw ko dëkk bu nekk ku fa jox nangam génn na nangam la fa joxe bi sànga joxe na ko ko ci mhm. nangam lañ ci jaay nangam dikk li li li daal bañ bañ génnee lii di ko jënd nangam nangam des nañ mhm. ko lii dugg na ci xaalis lii génn fi lii fi des mu mhm. a ah lii di mosuma ci àdduna yàgg naa fi maa ngi gis bari bari waaye di mosuma gisee waaye nag mbir maa ma ne deel leer rek ndi waa dama rek mu kii lii nag moo tax Touba Ca Kanam du bëri esop ndax nit ñi bëggatuñ lu leer waaye dañ leer rek lu leer mu siñ bu asee am dëgg rek mu mujj siñ bi dañoo wax ne jur maam àdduna si bu ma yàlla wala nekk ci ay caaxaan bu jàppale caaxaan mooy dëgg nekk ci rek yow nekk ci dëgg hmm? kon foofu foofu laa leen gën soñaat kenn ku ne daal na gën gën delluwaat ci ginnaaw euh, sipikuwaat gën a joxaat bopp Sëriñ Tuubaa te jàpp ne moom la ko Sëriñ Tuubaa taxawloo lu baax man la waaye lu yàqu lu yàqu lu man la boo kenn ko gëmee rek di Sëriñ Tuubaa bëgg dana ko am yàlla yàlla dafa fexe Sëriñ Tuubaa lu yemale ci ma ci na xam ne matal doomu aadama képp la waaye lu baax laa yéene soo sama yéene xatu ñaawut nit nag mënut ta mat al kamaal lillah yàlla rek mat kon lu may gis ma def ko rek ci doye di ak wala kii da ngeen bàq ci abi mbàkkee bati waaye du yëfi sëriñ Tuubaa moom sama sama mat bopp sama doye di bopp képp la maa ngi tuuti jéggul ñëpp nag koo xam ne wax naa ko naqari wala gis ma loo na ci nag ma jéggal yàlla tax man a jégg naa ñëpp képp ma kenn dara na ma ñëpp jéggal yàlla tax bu dara laa suy tuwaañ kanam daal feeg jiwa ba suy nag yàlla ko sëriñ ah. banaan yooyu baax bi naan baax bi xëy xaddi mi ni dinaa raax yàlla ko lem duggoo ko foofu rek nga xam ne fayate ko xamee ne fa la jumaa mu ànd fa ñoom rek jëm déet bu kenn bu kenn xool bu kenn gedd kenn ko doon mën rek